bisimilah rahmaani rahim sëñ sëriñ Touba barkeb sëriñ Bamba barke Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Abdou Aziz tey damaa kontaan sama xol sedd na ndax suba ba léegi njabootug sëñ Baara gee ngi fi teew ñëpp macha allah dama leen joxoon ni leen bu kenn ñëw heure bi na ngeen nekk ba nu julli timis ba sëlmal ñu tàmbali cérémonie bi waaye ci suba ba léegi nii rek lañuy def tey mu xat lool. waaye sëñ xaalim ñëw ànd ak mbokkam laaw la cat masalla sama sang sama sëñ sama yaakaar tey ëllëg muy sëriñ Malick astafurlah ba tey benn la Cheikh Bass dama naan bis bii bi nu ko tuddee sëriñ Ahmed njabootu sëriñ sëriñ Ahmed gépp a taxaw masalla waaye sama waa yi di Cheikh Bass moom sëriñ Ahmed moom sëriñ Baara moom sëriñ Bamba damay ñaanal fanam bi yàlla na diw doj ndax ba may ànd ak ñoom yu bëri xewul mu jàpp ma bëgg ma ay rakkam jàpp ma ñu ànd ak sëriñ Xaadim Mbàkke mii nag mu xat lool bis bi ci moom waaye nag waa bi wilaa ko fayee sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke moom sëriñ Baara moom sëriñ Bàmba du ko fàttaliku te du duñ ko fàtte ba mukk kon Mbàkke sa teewaay bii lu nu neex la am nañ ci mbégte te yow kese boo teewoon day mat sëkk ndax nag sunu yaakaar tey ëllëg yónnee na fi ci suba muy seex Moustapha sëñ Xaadim sunu xol sedd na bég na nu Cheikh Basirou xel gu ëpp la ci yow man sama xarit nga Mbàkke yàlla ma la sama am fayal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp eh, di nuyu ci kàddu Cheikh Moustapha eh, mi nga xam ne ma fi Cheikh Mamadou Lamine di fi si Sidi Mokhtar tey nag ñu ñëw ci ab taalibeem ab soppeem. kenn ku nek xamna benjum soxna Mbène Dioum ci keur seigne bara ma and ak sama mak sama kilifa di sama xarit di serigne Basiiru mu serigne Ahmed euh, ñu ñew teewal fi Cheikh mustapha ak njabot gi yep serigne bi sax yoni woon fi waye ñu and ñew ndax Mbène soxna Mbène kenn ku nek xamna ni seigne bara la ba jax tak kon lu mu lu nek dinañ ci taxaw danañ ca teew ndax kenn ku nekk ci ñun bu xewlee fu lu mu sori sori ak lu mu naaj naaj ak lu mu sedd sedd moo fay jëkk moo fay mujj kon nag nit bu dee sab taalibe bi bëgg la lool sopp la lool lii rek nga ko mën a fayee kon ñu ngi koy ñaanal suñu boroom li nga xam ni moom lay def di ak cant mu yàgg koo def ak ay bokkam yépp ndax tey jii ab sag la ci ay bokkam moom mi la ko waral nag du du ni moo ci mag wala moo ci koo xamante ni moom la ci gën ràññale waaye nag bëgg gu bëgg Cheikh Mouhamadou Lamine moo ko àggale fi mu àgg tey jii te loolu mi ngi ko tàmbalee ci njaboot Cheikh Mouhamadou Lamine ñi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine mën a jural euh, boppam tàmbale ko sëñ Abdou Aziz ba fi Cheikh ba ci Cheikh Sidi Mokhtar mi mujj jóge fi tey jii mu amoon tamit Cheikh Sidi Mokhtar amoon ci moom yéene amoon ci moom yaakaar ndax nit boo ko bëggut soppoo ko. xool gisoo ay jikkoom yu rafet doo ko yóbbu makk te sëriñ bi moo ko yóbbul boppam makk moom it jëmmam sëkku ko sëriñ bi moo ko ko xam ni kii bëggul kenn kur Cheikh Mamadou moo tax mu defal ko jëf jure joojee defaaleel ko mboolem ay bokkam kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bu baax a baax mu yàgg a def bés bi ak mboolem ay bokkam ak mbokki taalibe bi yëpp ndax la ci ëpp solo lépp mooy alxuraan ji nga xam ni wacce nañ ko fi mu nek limbu bu takku lépp nag mu def ko ci njabot Cheikh Mamadou Lamine njëkk ci Cheikh Mamadou Lamine yéene ci mbollem way dawli yep kon soxna ben Serigne mustapha mi ngi lay sante bu baax dila gërëm bu baax te dila ñaanal bu baax te ne nga dalal sa xel bu baax te xamni ne rek ngay am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa def nga lu neex sa mag ju baax ji nga xamante moy xel su sëñ bara nga ñew ci say kaddu fi ci mbenjum mi xamul kenn miinul kenn ku sëñ baara ak waa këram ak njabootam mbel lu mu dàq ke sëñ la jëm lu ko dàq ke sëñ la jëm sëñ ba ke sëñ ko saf ke sëñ ko neex tey nag tey nag ke sëñ baara sagal na ko sëñ baara gënal na ko mboolem mbokk yi mbokk ñu dëkk ñu ay lawbe mbooleem ñi di ay lawbe ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dama ne bu ci sëriñ doon am ma ne benn sëriñ bi ndax ndax sëñ Sidi Muxtaar dama ne askanu lawbe bu doon am sëriñ te am nañu sëriñ askan wi ñu dëkk fii ci guy mbind gii de mbéy mi seenu sëriñ ndax sëñ Sidi Muxtaar ndax ci yoon la judd ci la dëkk moom lay safoo moom lay doxe moom lay waxe ku fi jigéen suy jëm yóbbaale ko ku fi gor bu dikkee jox place kon ben mu muntu fe bar. yàq bar waye nak bëgg rek woor kon bale sa bo toogee di waxtaan ci mbenn yalla dogal ma fekk la fi fekk ko il faut que ma tàmbali say bale sa yalla nga fi dekhul won duko ci baye xamna ni keur sëñ fallu la bok waye keur sëñ fallo keur sëñ bare ben buntu la ca mom rafetal nako ko rafet kon sëñ bi neena mi ngi koy sant ci sunu tour diko ko sant ci touru njabotuk sëñ bare gep neena digeunte mak neen mom moom Sidi nii neena duko sant da koy ñaanal ndax féete dafa 10 nit ki la féeteel boppam moo la sonal kon nag nee na mi ngi koy ñaanal moom yàlla gën koo jubóolee borom këram njaboot gi mu am ak moom sunu borom sàmm leen ba def leen mag te bu nu doonee mag ñu doon mag ñu am njëriñ ci lislaam te mën leen a jëriñ ñoom say géej la noon naa Suleymaan xam maami Cheikh Abdul Aziz Labbar duni Suleymaan سيون سيجيت لنين عن شيخ محمد لمن بارا باي شيخ مصطفى باري تولن تخلو مقال جمباري توفيخ باي شيخ موت هاي زبارا كوسو بو شيخ شديد مختار مقال جبال تخلو مقال جمباري كرلانا جي جوداي بني سليمان سيجيت لنين عن خمس سليمان خاصن بارا نجوم جوداي ñi dox ba gis woon say géej la nuy naan suñ baaram moo bay sa baag waa Mbàkke baari baari leeral na baari cey baayu Cheikh Basiru baara moo bay sa baag ay waay waa Mbàkke baari leeral na baari cey Sëriñ baara ku yaatuy jër la ku xooti mbir la ku yéete xër la suñ baaraam moo duy ba feesal diinu bu feesal islam di feetal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sancoon nay daara musa ci Bara konkal nu daara ngir suñ baaraam wégoon na mag ñi cëral ndaw yi suñ baara daga fekki nit xam seen jàmbaar yu tax bon daan naan Cheikh Baara Mbàkke buy bind leer na sa suuf sa leer na say daaru leer na Cheikh Baara Mbàkke buy يا دينو أمغو يا تلجنغو يا تان لوفار شيخ بارمباك يا تان لوفار شيخ بارمباك مباكي كجورو جامير كجورو tey jooro ngir baara Mbàkke bég leen tey jooro ngir baay Cheikh Modou Aïssa Ba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman